mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen ñiy faral di seetaan télé bi nga xamante ni si mooy Prestige ñi ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di leen ziara di leen balu xaq di leen ko baal di wax salaamullahi wa rahmatuhu wa barakaatuhu wa irraanuhu alayna aleykum salaam comme ni ngeen ko xame kama yax fa aleykum ñi ngi fësal sunu keno ci kenn ki yàlla kennal te dootu kennal kenn ku mel ni moom bàyyi Fatima ak ya bàyyi Zeynab ak Umu Kalsuum maamu seex na seex saat bu sëriñu maam alxaaji Malik yaakaaru maam Cheikh Mat Bamba ñi ngi nuyu képp koo xam ne ci bu waxtu wi jotee da ngay faral di ànd ak tele bi nga xam ne mi ngi fii ci Thiès muy Prestige TV waaye di nuyu sunu kilifa yi diine yi waaye di ci jiital nag sëriñ Babacar Sy Mansour ibnu alaaji Mansour bal xaw mi waaye di ci tegit nag góor yàlla gu màgg ga sëriñ Muntaxa Mbàkke bi nga xamante ni si li maam Bamba bàyyi woon tey moom la ko yàlla jox waaye mu rafetal lool waaye di ñëw ba fii ci Thiès di ci nuyu ki nga xam ne mooy sëriñ Muniru Njëgën di ko ñaanal sunu borom subhanahu yàlla dool li ko yàggal waaye di nuyu itam ki nga xam ne mooy sëriñ Saaliw Ture bi nga xam ne moo fi toogal maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul moom itam waaye di nuyu waa kër maam Seydina Limaamu Laay yépp waaye di nuyu waa ba sëriñ Baye Cheikh Tidiane Seck waaye di nuyu waa ahlu Ndiassane Baye sëriñ di Maxtaar Kunta moom itam di ko nuyu bu baax waaye di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi di kilifa diine ak fépp foo mën a nekk ñi ngi lay nuyu di la ziar waa kër Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima ñas ñu nuyu leen bu baax a baax a baax ziar leen di nuyu nag ki nga xam ne mooy directeuru tele bi muy alxaaji Pape Doumbouya nga xam ne wax dëgg yàlla ni ma koy faral di waxee tele bi cees la dëkk jëndi wuñu ko abbi wuñu ko fii la dëkk ci cees te bu ñëpp defoon ne nii nga xam ne noonu la def kon yaakaar naa ne li ñuy wuti du bëri kon alxaaji Pape Doumbouya DC ñi ngi lay nuyu di nuyu waa télé bi yépp nag oustaz yi nga xam ne ñoo fi nekk di leen ziar bu baax a baax di leen wàcc seen wàccuwaay waaye di nuyu sunu caméraman moom itam xaaji Moussa ziar ko waaye nuyu ña ci rési ba ak ñi nga xam ne ñoo koy defar ba mu baax waaye sëñ Moussa ñu ziaraat képp koo xam ne yaa ngi faral di seetaan télé bi bii nga xamante ni si mooy émission bi nga xam ne mooy gàddaayu nabi muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te nga xam ne lu xew ak fu mu xewee ak ko ko xewal ak nu mu ko mën a xewale la ca gën ba tax mu xew yont yàlla muhammad la ndax Moussa 124 000 yi nga xam ne moom la rasulullahi bokk 313 ya nga xam ne yonent bi bokk na ca 25 ya nga xam ne yonent bi bokk na ca 5 ya nga xam ne moom lañ joxar bi génne ko ca ba pare nag ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi du kenn te kenn du moom ndax li ko yàlla defal ak ni mu ko ko defalee ak fi mu ko ko defalee daf ko faa defalewut kenn kon tedd ngay jikko soo koy wër wala jikko ju sell nga bëgg koo gis dangay ñëw ci ki nga xam ne mooy bàyyi Fatima waaye itam booy wër ki nga xamante ni si moo mat te nga xamante ni si moom la Cheikh Mat Bamba waxoon ne huwa akmalul wara xalxan wa xulxan nee na booy wër tëdd ngay jikko bul sori ki nga xamante ni si daal moom lañ gis ko ci moom mooy ki nga xam ne ci xuraysin la bokk rasulullahi te ku nekk xam na ne xuraysin bokk nañ ci ñi nga xamante ni si ñoo gën ndax xadimoo xuraysin waaye itam ku nekk xam na ne taar woon na ba yàlla tudde ko aw saar waye ku nek xamna ni ne mbind bi ko sunu borom bind keneen ku dul mom bind ko ko ndax melnu mom rek la yàlla bind ngir bopam soko topé ba mu jeex ana minallaahi wal mu'minun minni da ngay deg mu ne melnu man la yàlla bind ngir jëmmam bu doon yàlla amna na jëmm waaye menn man la yàlla bind bu doon bopam bu doon yàlla amna bop waye ñi ci dess ñépp daf leena bind ngir terale mako man yonent yàlla muhammad rasulullahi momu nak ku ne xamna ni màkkatal mukarram la juddoo waaye ku nekk xam na ne it màkka la màgge waaye ku nekk xam na ne it lañ ko génne li tax mu tudd gàddaay gi waaye keroog bi nga xamante ni si Muhammad waa màkkatal mu karam kompaloo nañ ko ne gën ci mbindeef yi sunu borom ne xaatimi nabi ina wa imaamil mursalina 124 mille yi seen njiit mooy rasulullahi ka ñu mujj a tamponeel ca tampon yañ doon tamponeel muy xaatam ba kiñ ci mujj a tamponeel mooy yonent yàlla Muhammad waaye màkk gii nga xam ne ci la juddoo waaye tey jii dafa koy génn lu tax mu koy génn nag mooy alaaj Ibrahima Sakho daan na wax ne bu Aba Taalib génnul woon àdduna Sayyidatuna Xadija génnul àdduna ab dëkkinam ab dëkkin mooy ñaaw Makka waaye kon du ñu génn kon yonent bi du gàddaay mukk ñu ne ko alaaj Ibrahima Sakho lan moo tax nga wax loolu mu ne Rasulullah dafa bari ay euh, euh, Aba dafa bari ay taaw te dañoo ñeme ndax moo juróon Jaxfar te yonent bi daan na toog ba mu yàgg mu ne waaleykum salaam yaa Jaxfar saxaaba yi ne ko lu xew ne Jaxfar mi na leen dem ànd ak malaayika yi sayyidatuna xadija dafa bëri woon alal te tabe ndax xadijatu ummi baxda ummi yonent bi nee na njortoon naa bi sama yaay amina génne àdduna dootuma am yaay ñu ne ko lu tax mu ne xadija mii bi mu ñëwee bu bëccëgee mu mat borom kër waaye su guddee mu taxaw taxawaayu soxna ba mat ko sëkk moo tax daal xadija mii ummi baxda ummi xadija daal bu bëccëgee njortoon naa ni dootuma am yaay waaye ndekk xadija mii mat na ma taxawaay ma taxaw jur woo xamante ne si muy sama yaay amina xadija moomu nag ku mas a yëg ne contre nga yonti yàlla muhammad su guddee mu fekk la ci kër gi wala bu guddee mu fekk la sa kër yëkkati malet jox la yëkkati alal jox la boko bañon yonenti bi sax ding ko rus ndax olof yi ñoo naan ko ëmb sa sankal ëmb sa sutura kon sayyidatuna khadija bu génnuloon aduna aba talib bàyyi sayyidina ali karamallahu wajhu génnul aduna ab dëkkin mooy ñaaw màkka way kon rasulullah du génn way bi nga xamé ne sayyidatuna khadija génn na àdduna nag aba talib génn na àdduna waa màkkatal mu karam nag kompaloo ki nga xamante ni si mooy yonenti bi ne ko nag ngay génn dëkk bi waaye bi ñu leen laajee lu tax dañu wax ne ku baax mënta dëkk ku bon ku bon it mënta dëkk ak ku baax te yonent bii dafa baax rasulullah dafa am yërmande rasulullah dafa jub te ñun loolu la ñuy bañ mu feeñal suñu jubadi gi waaye loolu la ñuy bañ it mu feeñal suñu ñàkk yërmande gi waaye dañuy bañ mu feeñal suñu ñàkk dëggu gi ndax à l'âge de vingt cinq ans lañ ko tudde Muhammadul Amin ki nu gën a wóolu ci màkka ba pare gën koo contre ci màkka bi nga xamante ni si sëñ Moussa wax nañu lool ñu daal ne nag dañ koy génne màkkatal mu karam dëkk bi mu dëkk dëkk bi mu juddoo dëkk bi way juróom juddoo dëkk bi nga xam ne ci la way juróom dëkk dañ ko koy génne waaye dañ ko kompaloo ñu ne dañ koy rey waaye ñu ne nañ lañ koy reyee ñu ne dañuy jël benn giléem takk ci tànk ndejoor jël benen gilem tak ci tànku chamoñ dak gilem bi mu jëm ci côté chamoñ dak bi mu jëm ci côté ndejoor bu ko defé rasulullah gilem yi dañ koy daal tagalé bom moom cër à waye dañu xamul ne innama amruhu isha arada say'an an yaqula lahu kun fayakun pexe ay na ci lu yàlla dogalut lépp lo xamné nit mi ngi koy def te sunu borom subhanahu wa taala dogaluko lépp lo xamné nit bëgg nako ko te sunu borom subhanahu wa taala nammut loolu say pexe day jeex ndax iñan dafa tardé da bay ba yàlla sédélé ba pare mu door ñëw te nak ma indakum yan fadu wa ma inda lay baax li ci nit ñi day jeex waye la ci yàlla du fa jóg ndax sunu borom subhanahu wa taala moy ki nga xamanteni ni si lépp lu mu dogal lola gën waye lépp lu mu defit lola gën waye sunu borom neena la yukallifu la nafsan illa wusaha lépp lu ma tek nit ki xamna ni atal nako motax mu bàyyi yonent bi mu gaday Màkka jëm Madina waye bi nga xamanteni ni si def na loolu it mu dal di yónni Jibril ne ko nel Muhammad نجانج ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطك المستقيم واي بو اكسي بو فم لا يبصرون نلين كو قب نيوم نيب ني دادي تد نلاو بيغا خامتيني سي نك يوننتي بي تي وقت وو خمغا كان لا فك موسى ابو بكرين شديق فكي بريمير اك ñar يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلنكو نكو فكي دوزيام اك ñar تام ابو بكرين شديق جلنكو نكو واي فم فلا فك موي سيدنا علين غا خامني موم فرير لا تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم Aboubacar ne ko bàyyil ma tëdd ci lal bi téye ndénkaane yi su ma leen ko joxee ba pare door a départ dab si leen mu ne ko déedéet dégg nga ca dëggu ga dégg nga ca maandu ga dégg nga ca xàmmee ga mu ne ko damay bañ ëllëg ñu ne dafa yóbbu rakkam bàyyi ab jàmbur te alin mi Aba moo ko jur moom Abdoulaye ñoo bokk ndey ak baay kon bokk yi ngeen bàyyi xel ci képp koñ la joxati muy doom joo xam ne dañ la ko jural jox la ko nan nga war a sàmmoonte ak moom yonent bi jàngale na ko dañu ànd maag moom ngir liggéey ci diine abu Aboubacar mii dañu ànd maak moom ci li nga xamante ni si mooy ci daxaw bi nga xam ne l'islam ci lañu ko yóbbu te l'islam moo tax ñu jóg ndax inna diina indalaay l'islam waaye kon alin mii dama bokk ak moom ci deret bàyyil mu tëdd ci lal bi téye ndénkaane yi su leen ko joxee ba pare door ma fekk si waaye bi nga xamante ni si nag Seydina Alin tëdd na ci lal bi téye ndénkaane yi yonent bi jàng yaasin bi mu ko ëgsee ba foofu ñu jàng ko xëpp leen ko ñu tëdd nelaw mu jéggi leen waaye bi ñu génnee tuuti màkkatal mu karam dugg nañ ci mel ni xunti moo xam ne coono moo leen fa dugal sëñ Moussa waaye xunti ma ñu dudd buñ la ba ñu dugg buñ la ko laajee nu mu tudd neel xaaru sawri xunti mooma nag def nañu fa ñetti fan ñetti fan yooyu nag bi ñu agsee ci biir xunti mi bi ñu duggee yàlla yónni petaxum mareem pitax mi nen ci euh, bunt bi mu yónni lënd lënd lënd ci bunt bi mu yónni jargoñ jargoñ lënd ci bunt bi waaye nag Abu Bakrin Siddiq a ngay xotti yëree di xotti yëre yi di def ci pax yi di xotti yëre yi di def ci pax yi ba mu des menn mennum pax mu jël tànkam bu sell booba tànkam bu wér booba tànkam bu wóor booba des ko ci menn pax ndekete yoo yàgg-yàgg xamoon na ne yonent bi dana fa jaar moom jaan ja fa nekk waaye bi mu puusee aboubacar teg tànkam mu puusaat aboubacar teg tànkam jaan jooja màtt na ki nga xamante ni si mooy abu aboubacar waaye dangar jay yéeg dangar jay yéeg dangar jay yéeg ba nga xamante ni si euh, ca pax moomu xunti ma bi dangar ji yéeg am na ku leen fa doon fekk doon leen jox li nga xamante ni si moom lañu doon xéwloo kooku buñ la ko laajee alaaji ban gay neel ma nga tudd ki nga xamante ni si buñ la ko laajee mi ngi tudd ki nga xam ne asma la doomu abu abou bakrin siddiq la moo leen doon fekk ci xunti mi nga xam ne xaaru sawri la tudd def nañ fa ñetti fan waaye bi nga xamee ne euh, ma ngay dangar jaa ngay yéeg bi yéeg ba nga xamante ni si ñaq wa rogalaat na ba dal ci lexu yonent bi fekk coono dab na ko rasulullahi 124 313 25 5 yi ku ko ca gën amu ca moo ca gën moo ca raw moo ca man ndax nag moom la yàlla ne inaa fatax naa laka mubinan waaye bi mu ne xifeet yeewu ne ko aboubacar man haza lan moo xew jaan ji ne toneen ne ko man mi maa ko matt te ku ma mas a matt sa jabar tënji na ku ma mas a matt sa doom nekk na jirim rasulullahi tontu ko ne ko man la yàlla ne wala sawfa yuhtiika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa hawa waye bu démé ba ëlëk nak man la yalla né wa amma bi nihmati rabbika fahdis koku moy yonti yalla muhammad bu ëlëgé ku dekki tiit kenn ko ku dong képp ki gadayon makka jëm mëna wara koku rek moy dekki ta du tiit waye bu dékké nak yalla daf ko naan tay ji sal tox ta tay du bisu julli ndax fay kabbar yaakar ne julli war na jot mu dal ne ko tay du bisu julli tay du bisu wor tay du bisu nat asaka tay lañuy fay ñi ko daan def ta daan sellante ak mom ndax nak tay ji la bis penc gatch nañu sirat gatch nañu nama na ma siraat ngay xaju jëhël na ma ngay xaaju tey jii nag yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma isin lillah lu fi waay defoon tëddul yoon lu fi waay defoon tëddul lu baax ak lu mu manti doon man sunu borom subhanahu wa taala tey jii laa koy fay kon nag ngeen xam ne adduna bii ñu nekk muy Sénégal mag ñi liggéey nañu lu jar loo xamante ni si bu ëllëgee sunu borom subhanahu wa taala dinañu ko fay waaye période bii nu toll nga xamne Sénégal dafa am lu fi dugg lan mo fi dugg nak moy li nga xamante ni si mooy balaa balaa nag li koy dugal ci am réew nattu la bo xamne sunu borom subhanahu wa taala mo koy tege waye lan la nit ñi def ba sunu borom tek ñuko lolu mo moo set ndax bo deme tuuti ci alquranul karim bi ñom sëñ dàmbay di jàng oustaz da ngay deg sunu borom subhanahu wa taala nan ya ayyul ladzina amanu khu anfusikum wa ahlikum nar yow nit ñi yow borom yi yow ak ko meuna a doon na nga moytandikul sa bop ak sa ñoñ ak ñi nga xamante ni ñoom la la yàlla séddee ndax na kullukum ra'in wa kullukum masul an an ra'iyatihi borom kër gu nekk sàmm nga waaye na nga fexe ba moytul sa bopp ak sa njaboot loolu ñuy wax mbugalum safara waaye Sénégal gii nu nekk ku ne xam na ni li fi dugg tey muy balaa nit ñi ñi ngi ñaan ñépp a ngi ñaan koo xalaat mi ngi ñaan waaye koo wax mu naan la nañu dem toog nañu dem di nan la ñuy tooge gis nga bu balaa duggee ci am réew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku ci nekk fa nga toog na nga fa toog ku ci nekk fa nga dëkk na nga fa yem lan la ñuy bañ mooy balaa boobu noonu tasaaroo ci dëkk bi te du ñu xam lan moo ko tasaare waaye bu ku nekk dëkkee fa mu dëkk ku nekk toog fa mu dëkk léegi ñu xam balaa bi fan la nekk bu ñu ko jàppee génne ko ci réew mi ñépp delluwaat seeni activité beneen bi ci des it bu ñu tëjee jumaa yi tëj jàkka yi tëjuñu ko ngir dañu bañ lislaam ndax bu fekkoon kenn dafa jóg taxaw ngir ne dañ koy tëj ngir lan moo tax mooy ci teeyu bàkkanam rek bu boobaa yi yëg nañ ne amul ku mën a tëj jàkk yi ak jumaa yi fii ci àdduna ndax sunu borom subhanahu wa taala moo santaane julli sunu borom subhanahu wa taala moo santaane woor suñu borom subhanahu wa taala moo santaane natt asaka waaye li tax ñu tëj ko mooy lii fi ñëw kenn xamul kañ la fi dugg kañ xamut it kañ la fiy génn kon li nga xam ne moom la médecin yi santaane te ku ci feebar man daam saaxo su ma feebaroon damay jéem a dem yóbbu sama bopp ci médecin ngir mu xool nan lay def ngir faj ma comme yàlla dogal na nag médecin yi am nañu xam-xam boo xam ne dafa yëngu ci wàllu médecine te maam Seydi Hadji Malick ne woon na bu dellu woon di jàngaat wala mu dellu nekkaat kuy jàng xam-xamu médecine dina ko jàng ndax barke bi ci nekk ak li nga xam ne mooy euh, fajuk ajo gi ci nekk waaye ndimbal gi nga xam ne di nga ko dimbali jaamu yàlla yi te képp koo xam ne sëñ Moussa yaa ngi dimbali jaamu yàlla yi di nga fi wér te di nga fi yàgg ndax wa amaa man yasfahu naas fa yankusu fil ard kon feebar bii nga xam ne moo dugg ci Sénégal muy coronavirus nañu sàmmonte ak li sant toog ci kër yi te bàyyi génn bi nga xam ne boo koy génn amuloo farata bu la génne ku am farata bu la génne farata yàggul soo génnee doxi ko dellu si waat toog beneen bi ci desit mooy lin nu sant ci wàllu set yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkkoon a santaane an nasaafatu min al iman set ci jaamu yàlla la bokk beneen bi ci desit julli toog fa di waxtaan loo xamante ni si bi nga koy wax xamuloo waxu lan la sunu borom subhanahu wa taala moo ne woon wa isa qudiyati salaat fantasiro fi l ard wabtaxu min fadlillahi waskuro laa kasiran laa laakum tuflihun kon soo jullee ba pare dajante ak nit ñi lan ngay taxaw di wax kon julli nga ba pare jóge nga ci julli gi def nga say baaxiyaatu saalihaat bi nga paree jógal nga dellu sa kër wala bu dee kuy liggéeyi nga jóg liggéey mbokk yi lii nga xamante ni si moo nekk ci Sénégal ku ci tiitul war nga ci tiit ndax sëriñ si ñi ngi ñaan médecin yi ñi ngi faj waaye da ngay xam ne borom bi subhaanahu wa taala lu mu namul mu jóge fa du fa jóge heure bu àpp bi jotee pour mu jóg fi nag bu keroogee loolu dina fi jóg yal na yàlla dogal àpp bi jot mu jóge fi balaa yàgg ndax lii kat mu ngi bëgg a réew mi waaye ñi nga xam ne itam sunu borom subhaanahu wa taala may na leen ndax ku yàlla jox lu ëpp sa soxla daf la séddale loo te mbokk yi képp koo xam ne jëf nga li nga jëf bu ëllëgee yow la ko yàllay fay képp koo def ëllëgee yàlla du jël compte kenn diko def ci compte dam saxo man amila saalihan fali nafsi kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu way def sa bop sayna Ali karam allah dafa ma a ñëw wa sahaba yi ñu tok mu ne len kenn musuma defal dara waye man tam musuma defal kenn dara ñu jaxle ñu ne waw li nga def lépp lan motax mu ne len bu ëllëgé bu nu gàccee sirat gàcc jaxal nama bu boba ker du am naaj day tàng jër ñaar ñu soppante won ta yàlla tax ker yàlla dina len keral waye bu boba nak sama téere jëf sunu borom bu ma ko indilee li ma doon jëf ci lu baax man la koy fay waaye li ma doon jëf ci safaan itam man la koy fay kon mbokk yi nga xam ne yàlla jox na leen lu ëpp seen wërsëg te maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ne maa ngi xaar ba ëllëg yàlla di fay wax bàyyi jëf ndax foo gis illa lazina amanu oo amilu saalihaati ña nga xam ne ña ngay jëf tey sellal moom moo tax kon képp koo xam ne sunu borom jox na la loo xam ne mën nga ci dimbali jaami yàlla bul leen dimbali ngir dara moo tax da nga leen di dimbali rek ngir yàlla ndax képp ku def te yàlla tax sunu borom subhanahu wa dina la fay ndax yàlla kat lu ko waay lebal dana la fay te it yàlla du jël jëfi kenn di ko jaawale ak kenn kon feebar bii nga xam ne moo fi dugg ñi nga xam ne ñooy takk der yi bàyyi seeni kër bàyyi seeni soxna première violence bi njëkk a am mooy yow ñu ne la bul génn nga génn ci biti yow yaa njëkk a violé waaye yow mi nga xam ne itam génn nga ci waxtu wi nga xam ne dañu ne bul génn la tax ñu tere la du yàpp la am na jamono boo xam ne kenn daawul wax bul génn waaye lii dugg si ci kër gi dugg si ci kër yi dugg si ci dëkk bi kenn xamul kañ la fi dugg te kenn xamul kañ lay génn beneen bi ci des du ñu dem ci biir kër yi fekk yow mi nga xam ne yaa ngi ci mbedd mi xamuñu ndax am nga ko wala amoo ko ki bàyyi këram waroon a toog ci soxnaam yow ñu ne la toogal sa kër nga nekk ci mbedd mi du ñëw di la jàpp wuur ndax am nga ko kon nan lay jëflante ak yow mooy dafay jéem a fexe nu la génnee ci mbedd mi pour nga dem sa kër beneen bi ci des du la jël di la téye di yóbbu ca kaso ba ndax bu ñu la jàppee xamuñu kañ ngay génn beneen bi ci des bu ñu la jàppee dugal la ci oto bi te ñuy bañ dajaloo bi nga xam ne moom la ñuy dajaloo kon daal li nga xam ne mooy xew yàlla sunu borom lañ koy ñaan mu jóge fi te buñ ko ko ñaanee sunu borom dina ko fi jëlee ndax moom mooy ki nga xam ne mooy moom penku moom sow di borom innama amruhu isa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun di wax sunu borom subhanahu wa taala na kilifa yépp dellu ñaan fii ci Sénégal mag ñi ñaan nañu ndax Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul boo demee fële ca Touba euh, li nga xamante ni si dégg nga ko mi ngi naan asbil suturi asbil umuri kasil xuyuri bila ixtidaay kon sunu borom subhaanahu wa taala na ko defal sutura waaye ci biir sutura soosu kim ci yaakaar ne mën na ko mooy sunu borom subhaanahu wa boo demee fii ci ki nga xamante ne si mooy maam Seydi Hadji Malick dem ci kër maam Seydina Limaamu dem ci mag ñëpp ku ci nekk ñaan nga loo xamante ni si mooy tax jàmm am ci réew mi yal na yàlla defal nu jàmm defal nu sutura loolu nag pour jàmm mën a am mooy ñun dañ koy njëkk a sàkku ba pare yéenante jàmm ndax aljuma ju jot nga dem ci fi nga xamante ni si mooy aljuma yi avant ñuy bay julli jumaa gi te nga xam ne feebar tax ñu bàyyi ko du mbindeef ko yàlla bind da ngay dégg ñu naan la laa tadxulul jannata xataa tuminu walan tuminu xataa taxaaboo lan la wax foofu mooy laa tadxulul jannata du ngeen dugg mukk aljana xataa tuminu lu da ngeen gëm yàlla waaye walan tuminu xataa taxaaboo li ma yéene sama bopp su ma ko yéenee ki nga xamante ni si mooy Serigne Ousmane Mbaye bi fi nekkoon sànq yàlla daf ma koy fay waaye su ma la ko yéenewul yéene ko sama bopp sunu borom subhaanahu wa taala nee na min ka ilayka buñ koy firi mooy bal bi nga sànni ci miir bi ni muy dellu seen mooy ni nga ko sànnee mooy boo yéenee nit ñi lu bon mënoo tax ba yàlla def kenn lu bon waaye boo yéenee nit ñi jàmm itam jàmm jooju nga yéene nit ñi sunu borom subhaanahu wa taala dana la ci jox ba nga xam ne lu dul jàmm jàmm moo ko gën te lépp lu nit di def te jàmm amul da nga koy bàyyi ba jàmm am kon nag nañu delluwaat ñaan jàmm delluwaat itam delluwaat xam ne ñun ay jullit lañu li nga xamante ni si nag moo fi indi problème yi ak li nga xam ne moom la ñu def ba yàlla indi lii suñu ko bàyyee sunu borom subhaanahu wa ñëw te gis nga wa xuulu li naasi usnan wa aqimu salaat wax ju baax ci jaamu yàlla la bokk te avant lii di xew dégg nga réseaux sociaux yi dégg nga ci dëkk bi koo dikk micro ma ngay xas kii koo dikk micro ma ngay wax ci kii koo dikk micro ma ngay wax ci keneen te gis nga sunu borom subhaanahu wa taala dafa ne من كان يونتي بي دافني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت سو ديمي باي واخ واخال لو رافيت سو مانتا واخ لو رافيت نغا نوبي سونو بروم ني وقولوا للناس اصلا واقيموا الصلاه ديغل جولي ليمي فور فور سونو بروم نينا واخ جو باخ بوكو نا سي جامو يالا تا داجانتي نيت كي واخانتي لو باخ سي جامو يالا لا بوك تا سوغين جولي يالا مان نكو أه، بوك سي ييغا خامني جولي ييغا خامني موم لاي نانغو كون بوكي سينيغال جيغا خامني سي لا نيو نيك كوني خامنا ني رسول الله كوني بوغوكو مو مير te ku nek xamna ne bi mi gàddaayee Makka jëm Madinatu Munawwara wara ñako don dàq ba mu deme ba jekku len daf len a jéggal lan motax mu jéggal len neena yàlla du wax ne yaa ayyuha lazina amano yaa ayyuha lazina kafaro yaa ayyuha nas ya ayyuha lazina amanu yow mi gëm lay waxal kon yow mi gëm war nga gëm li nga gëm te bàyyi keneen ki mu gëm la mu gëm ya ayyuha lazina kafaru ki weddi lay waxal kon yow mi weddi war nga weddi li nga weddi waye bayil ki gëm mu gëm li moom waaye bu delu suwate nak ne yaa ayyuha nas nga deg mu ne yow doomu adama lay waxal yow doomu aadama bi nga xam ne maa la bind bi ma dellu see bind la ba pare defaloo ma lu jar ma bind la ba pare tagg la kon wala xadd karam naa ba nii aadama maa bind nit ci nim ma neexe bind nit sama coobare waaye wàññeekuwaatit nag teral doomu aadama boobu nga xam ne maa ko bind waaye delluwaatit nag ci ñi nga xam ne jël nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma jël leen nag rasulullahi teg leen ci seen kanam te xam ne bu ëllëgee yonent bi mooy dekki kàbbar régler problème yi waaye bu dul moom koo daw wuti mun la nafsi bokk yi ñun bi nu juddoo avant nuy juddu sunu borom subhaanahu wa taala nee na ku nekk li nga war a am di nga ko jot lan moo tax loolu mooy wama min daabatin fil ard ila alallahi risqa sunu borom nee na li daam saaxu war a jot ci biir suuf ak daam saaxu li mu war a jot ci kaw suuf ak dam saxu liku nit meuna xagn day fekk mënu sama ciobare waye lépp lo xamne sunu borom namm ko ngir lolou nit xagn lako kenn meunu lako xagn waye nak lu nit wara am te yàlla dogulul nga war ko am nit meunu lako jox mu delu ci ne wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yaxbuduuni bindu nit ak jinne ludul dul dañ ma wara a jaamu ndax lima bind nak nit ak jinne su ëllëgee dina leen laaj lan lañ doon def ci kaw suuf waye dina leen laaj itam nan lañ dëkki woon ci kaw suuf waye dina leen laaj itam bima ma leen wàccee ba pare bind leen tek leen ne alastu bi rabbikum ñoom ñëpp ñu tontu ne xaaloo ballee bu ñu demee ci kaw suuf yow la ñuy jaamu est ce que bi ñu wàccee dëggu nañ ca loolu ba respecté ko wala bi ñu wàccee ku ci nekk jaar nga ca la la neexoon waaye nag jàpp leen ne wa ridwanullahi akbar ngërëmal yàlla moo gën a màgg lu mu manti doon te ñu ngi koy amee ci jaamu yàlla yal na yàlla génne feebar bi nga xam ne moo nekk ci Sénégal génne ko ci àdduna bi yépp fépp foo xam ne àggoon na fa yal na sunu borom génne ko fa euh, ba nga xamante ni si loolu dootuñ ko gis fenn képp koo xam ne itam jotoon na laa dal yàlla na sunu borom saafara la ba nga xamante ni si loolu noonu dootu la dal kilifa diine yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi nañu toog ci seeni roq ba pare joxe ay dog bu ko defee ñu jàng ko euh, ñaan ko yàlla génne balaa bi ci Sénégal génne ko ci àdduna ndax fi mu nekkat réew yëpp bi ñu jaaxlee Sénégal la xel yi nekk ndax damay wax ne mag ñi nekk Sénégal li ñu def ci diine Serigne Cheikh Ahmada Tidiane mu tedd mu bàgg mboomu doomu Serigne Babacar Sy Dia moo ne woon Sénégal li fi yàlla am bu ëllëgee bu ko xeebee day perte moom tolluwaayam la sañ na ko wax ndax xam ne la mu wax waaye ñun sañuñu ko dañuy nettali ay waxa képp koo xam ne yaa ngi seetaan bi yal yàlla faj say mbir faj suñuy mbir defal la jàmm génn feebar bi ci Sénégal ci barke yonent nag DG Alxaaji dumb Dumbuya ndax nag lii mu def may nu ñu mën a joxe suñu bind ci tele bii su ñëpp defoon noonu kon duñ jëggaani dara fële nga xam ne mooy Ndakaaru waaye ñi nga xam ne am nañu alal ëllëg inna amwaalakum wa awlaadakum suñ ko delloowut ci yàlla fitna la leen di jural yàlla yàlla musal ñu ci fitna ñi ngi nuyu waa télé bi yépp di leen gërëm di nuyu auditeur di nuyu ñi koy seetaan ak fuñ mënti toog ak ñi koy topp ci internet bi ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu ustaas yi nga xam ne ñi ngi fi ñi ngi seen suñu mbokk léegi Hadj Dame Mbaye sëñ Ousmane gis nañ ko mu génn fi ak sëñ Modou Diom Ndiaye borom njariñ li ak ñi nga xam ne ñi ngi fi nekk yépp waaye gërëmaat ah, ñi nga xam ne ñoo nekk ci tele bi yépp yàlla na yàlla defal leen jàmm defal leen sutura alhaaji Pape Doumbouya li nga xam ne moom la taxawee ci dëkk bi di ko def ci wàllu social yal na yàlla fay ko ko ndax kat mi ngi jël li mu am ci alalam di ko jël liggéeyi ko ba ñàq ko indi ko waroon ko jëfandikoo waaye mu jël ko delloo ko ci ñi nga xamante ne si ñooy jaami yàlla yi te man la saali an nag fali boppam kenn deful kenn dara lu waaye def sa bopp yal na yàlla defal ko jàmm defal ko sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ila liqa